laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha barke maam Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridina ñu yëkkati fi ay bayit yoo xam ne biis bi day yaayoo bis bi ci jàmbaar jooju di Cheikh Ibrahima Fall nu àndandoo di sant buur bi rabbana julli ci Moustapha lay gërëm Serigne Touba ca kaw ngir yàlla maam Cheikh Ibrahima Fall bilaay nun Fall nun naaw nañ la lamp bi leer na dootul fay Cheikh Ibrahima Fall la ilaha illallah waa kay jërëjëf mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziare ñu ngi ci màggalu ko euh, maam Cheikh Ibrahima Fall bis bi nga xam ne euh, suñu jàmbaar ja euh, sëriñ Bassirou Fall Alxuraan moo ko indi fii di diwaanu Touba Mbacke tey nag bis bu doy waar moo ci am muy wàccu liggéeyu sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng mi nga xam ni moo doonoon xarifa maam Modou Moustapha Fall di ko ñaanal suñ borom yokk leeram bu baax rek yaata xéwalam ñu toog ak sëriñ Talla Ablaye moom sëñ Ablaye Fall moom maam Cheikh Baye Fall lamba mu dina tey dafa ma ne magam moo wàcc ci ab liggéey ñuy fasaaleel bu baax a baax maam Cheikh Baye Fall nga xam ne eh, guddi gi la jote woon gërëm ci eh, sëriñ Touba Xaadimu Rasuul ca Daaru Salaam kon ñaari bis yooyu lañu ñu fas yéenee boole tey muy ak màggal akum ñaan di ñaan rek lépp luñ fi ñaan yàlla suñ borom nang ko témoignage euh, euh, sëriñ taal ablaay mi mi muy def ci sëriñ euh, ci magam xaritam wóolëreem léppam moom moom ñu bokk maam Cheikh May Fall kii sëñ Ablaye Fall Ndar meññ ko kii maam Mamoud Moustapha Fall meññ ko kon nag dañ jox dañ koy jox rek mu témoigné ci nga xam mooy magam mooy xaritam mi nga xam mooy moo wàcc Baye Talla ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëriñ Mor Talla Fall moom sëñ Abdoulaye Ndar nee mu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax nee na ci bis bii nga xam ne maam Seera Fall ci la am ngërëmul sëriñ Touba nee na muy fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmm nee na yàlla dogal na njabootug Seex Ibra Fall di ko def. waaye nag ku ci am sens waaye nag ki ci am sens mooy sëñ Bassirou Fall moom sëñ Mbacke Fall moom Cheikh Ibra nee na ndax bis bii moo ko tàmbali ci jamono sëriñ Saliou doon ko woote ca Tiwaawoon nee na bi nga xamee ne yàlla dogal na sëñ Baara Falilu doon na xalifa njëkk ko doon ci sëdi ci ndigalam lan jële bis bi Tiwaawoon indi ko ci pàkk yi nga xam ne mooy Baay Faal gi te sëñ Abdou Lahad joxoon ko njabootu Cheikh Ibra Fall gépp nee na fii ngeen ko fekk tey nag mooy kër sëriñ Abdoulahi Fall Ndar nee na ren nag daa dajeeg bis boo xam ne nii mën nañ koo tuddee bànneex waaye naqar da cee am nee na seen mag yu baax ju ñuy wax sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng moom sëñ Modou Moustapha Fall nee na nga xam ne sëñ Cheikh Fall bàyyi góor moom moom la tuddee sëñ Cheikh Roqe yi mii ko fi nekkal tey nee na yàlla dogal nag mu wàcc ci ab liggéey biñ ko dencee ci fajar ba noppi sëñ Cheikh Abdou Latif dane lépp luñ koy defal nañ ko ko defal tey ci bis bii te nañ ko defee ca Baye Fall ga nee na moo tax tey ñu ñaanal fii sëriñ bi nee na moom nag bi mu noppee gis baayam sëñ Cheikh Baye góor la àndal ba noppi koo gis mu ànd ak sëñ Modou Fallilou Fall muy sëñ Modou Aminta bi mu ko noppee gis nag mu ànd ak sëñ Cheikh Jëmb bi sëñ Cheikh Jëmb wàcc mu doon xalifab sëñ Modou Moussa Fall nee na kon ñu ngi ñaan suñu borom yokki leeram te sun borom taas ñu ci barkeem sëriñ bi nag fi ngeen ko fekk mooy kër sëñ Abdoulaye Fall Ndar yàlla dafa dogal moom miit mu nekk jëmm ju baax ndax moom it noonu mu lime ci sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng ci ay topp ay kilifaam loole moo neewaat ci sëriñ bii di sëñ Mortala Fall mu sëñ Abdoulaye Fall ndax moom it kenn la mos a waajurum nekkee muy sëñ Modou Abdoulaye Fall waajuram boole koog sëñ Modou laay Fall mu ànd ak sëñ Modou laay Fall ba sëñ Modou Abdoulaye faal gërëm ko biir ak biti ñëpp xam ko ba ñibbi àjjana ba sëñ moo Abdoulaye ñibbee àjjana it newul fenn di tendeefal dafa daal di jubali ci sëñ Cheikh Jëmb Fall mi fi nekkal maam Serap Fall ba sëñ Cheikh Jëmb demee mu nekk ak sëñ Amdi Modou Mbende mi fi nekkal tey maam Serap Fall sëñ Talla Fall mos sa génn kër maamam muy kër maam Cheikh Fall loolu nag mooy suuxat te mooy ndam kër gii ngeen gis nag ni mu mel ba ñëpp man fee ne tey yàlla ak jëmmam ji moo ko fi moo ko fi def kër sëriñ Abdoulaye Fall Ndar la bi yàlla dogalee mu nekk xalifu sëñ Ablaye Fall Ndar ci la ko suñ borom baaxee ba mu génne kër gi def ko ba mu mel nii mu mel ba njaboot gépp mën fee daje di màggal maam Serap Fall ndax bu bo ba mu daan màggal maam Serap Fall booba am na këram gu nekk nee ca ginnaaw foofu la ko daan defee waaye bi mu demee bay sëñ Ablaye kër gii ci la ko daan defar ba mu méngoog jamono taalibe yëpp mën fee daje di sant sëñ Tuubaa di sant maam Serap Fall bis bii nag bisum ngërëm la sëñ Cheikh Ndiaye Mbengue moom ngeen wax borom tawféex la ndax ni mu doone borom tawféex mooy bis bii ñu gërëme maamam moom jaayante na ceeg yàlla ba nu gërëm ko ci ndax dem na ci àjjana kon loolu gërëm mënta weesu gërëm te ki ko gërëm muy sëñ Amdi Modou Mbenda mi mooy maam Serigne Fall làmp ki ko te ki nga xam ne moo moo seede ngërëm li mooy sëriñ Muntaxa moom sëñ Basiru te xam sëñ sëñ sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng yëkkati na addee ba tey dem ci sëñ Muntaxa xam na ko bu wér xam na tamit fi mu fi mu lim liggéey sëñ Modou Saa Fall kër sëñ Modou Saa Fall ci Baye gi sëñ ah, sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng moo ko liggéey ba mu àgg ñëw dëkk fi nekkal fi sëñ Modou Moussa Fall kon loola ab liggéey la boo xam ne liggéey bu rëy la boo xam ne liggéey na ko ci yoonu kër Seera Fall kon loola ñu ngi koy ñaanal sëñ Mortala mii mu yàgg fi lool lool lool lool ba naal yi mu naalal waajuram mu sëñ Ablaye Fall mu man koo def te ànd koog nun ànd ko mboolem jullit yëpp ak taalibe yëpp ba ba ba lépp loo xam ne naal na ko rek suñu borom defal ñu ci tawféex ak xéewal kon sant nañ leen bu baax a baax gërëm na leen bu baax yàlla nañ ko teewe at yu baree baree baree bare ci barke maam Seera Fall ni mu fi nekk sëñ Ablaye Fall Ndar nag yàlla na yàgg lool lool lool lool ñëpp a ngi ko koy ñaanal jërë ngeen def sant nañ bu baax a baax soxna wa ñu ngi sant bu baax waaw